الرحمن الرحيم الرحمن اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم اهدنا الصراط المستقيم صراط صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب ¡Vamos!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 ورضي الله عن شيخنا ورجائنا قطب الرباني مولانا سي احمد بمبا وعن جميع خلفائه واهل طريقته موكي جولي موكي طالبي موكي دكنوي نيوغي لين دي نيو غنغا سيد نيو دي لين زياره واي دي لين دلام دينا اهلا وسهلا ومرحبا بكم دي جيتال نيو بي اك زياره بي خليفه سيرال دا مريد سيرن توبا سيرن منتقى اطال الله عمره وايد الله ونصره دي تك سيرن مصطفى ابن الشيخ محمد الامين بارام باك مي خامي موي خليفه بو دي تك سونو كليفه di suñu sëriñ di suñu jëwriñ muy sëriñ Saalifu Mbàkke Xaadim aw ba ah, di ko ñaanal yàlla dëgëral ko te yàggal ko ba lim nisal lépp ngir liggéeyal ko maam ci diine mu àgg rek te ñaan ko waaye di sant njabootu Cheikh Ahmadou Bamba gi nga xamee ni ñu ngi fi teew nga xamee ni di ko tàmbalee ci njabootu Cheikh Cheikh Mouhamadou Moustapha Karim ak Cheikh Mouhamadou Mourtada kër bu ne am na ñu ko jóge ñëw teew ñoo ngi leen di dalal di leen euh, tàngal di leen sargal di am kontaan ak mbégte ci seen i waaye di dalal autorité yi nga xam ne ñoo ñu jiite ci wàllu adduna teew fi te monsieur le maire Mouhamadou Lamine ko ñu leen di dalal waaye di dalal mboolem taaliba yi fi teew yépp ak fuñ mën a jugee góor ak jigéen mag ak ndaw di sant yàlla bu baax ci bis bii di sant mbooloo di wax ne kat ci wooteeb diine wooteeb lislaam ngeen ñëw wuy si te loola nag am na ci suñu borom subhanahu wa di leen sant ci woote bi nga xamee ne woo nañ leen ko ci woote diine ngeen ñëw teew te suñ borom subhanahu wa taala wax ci alquran karim yaa ayyuha alladina amanu stajibu lillahi wa lirrasuli ida daakum lima yuhyikum yéen ñi nga xamee ne gëm ngeen yàlla ak yonenteem bu ñu leen woowee ci lu jëm ci yàlla ak yonente bi ngeen jëm wuy si kon nag yéen ñëpp wu si ngeen ngeen dajee jariñal aaya loolu ak li si solo taala jigéen di wax ni kat ku la woo boo ñëwee dana la wax wala mu jox la li waral woote bi nag mooy liggéey bii nga xam ne Serigne Saliou Mbacké Xaadim Awa Ba da ko sumb di ko ko liggéeyal waajuram Serigne Xaadim Awa Ba waaye di ko liggéeyal lislaam ndax kat ah kuy xalaat danga naan fii waroon naa am jumaa bu yàgg akay ah, war nga ko am yàgg waaye nag sëriñ bi dafa jëfandikoo li Yonent sallallahu alayhi wa sallam wax al madaris na ngeen jiital daara yi ba pare doo ko tabax jumaa yi ak jàkka yi tabax daara yi bàyyi imaam juddoo ko ay nit yàlla juddoo fa ay citoyen ñu xam ñoo xamee ni ay patriote dañu doon juddoo ci loolu le Sëriñ Saliou Mbacké nekkoon ba ci loolu tabax na ay daara yu bari yu takk yu dugg defar ay nit te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne yàlla gindee ci yow kenn nit moo gën adduna ak li ci biir kon moom jëfandikoo na mu mel ne bis bii nag li ko tax a jug mooy jumaa ji nga xamee ne Cheikh Mouhamadou Lamine taala anhu misawoon na ko ko boromam te joxewoon ay tegtal wane woon ci aw yoon te Serigne Bara ji 1936 ñu dem ba 2020 loolu histoire

wàcce ay sigi yow tam sama man sa bàyyi euh mbooloo mi ci boo may leen may leen may leen photographie ak filmkat yi. may leen ñu liggéey waaye photographie. suñu liggéey de. suñu liggéey de. waaw rapport naa la. dafa am dañoo déggoo pare. waaw loolu déggoo rek alors. liggéey bi yëpp ci bopp boo xam ne kenn ku ñu ولدان اسماعي واليوم الثالث وبيا وزاد وبدان أتى نصر وبيا يلازمني سيد وبيا Ibra bàyyi la liggéey Ibra am nañ daan. may ko may ko xëy na kay bàyyi ñu baal. bu leen tegoo bu leen tegoo bàyyi leen dirib bi il faut ngeen dégg teg leen. waaw ndigal laay déglu xam nga ñi waaw sëñ Ba ngi di ñaan. waaw. vrai dañ koy tas. Touba ju mag yoo xam ne naan nañu dégg te ngeen mooy di jaayante am solo nga xam ne ci lépp rek nga teg ko ci. waaw xeer bi loolu laa ko bu si diwoon nañu pare ñu mën a am. soo si gis yow sëñ bi kii pare nga doon jël xeer sëñ bi. waaw ndeysaan sëriñ Basiir moom ñoo koy di ñaan sëriñ Basiir Fall waaw moom ñoo koy di ñaan moom tamit ànd ak imaam Aliou Kébé bébé xat na mboolem média yi nekk sax.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

joxal joxal sëñ Cheikh Kadi Cheikh joxal sëñ joxal sëñ Mame Bara mu ngi noonu bismillah Babacar Xalifa Jaar moom itam mu ngi fi doomu kër gi madame Aïssatou Lo Mbargu PCA pharmacie d'approvisionnement responsable affaire moom itam ak code délégation mu ngi fi Cheikh Meissa Ndiaye di borom kër gi di kenn ci Serigne Khadim mi meññ yii mu ngi fi danaa dellu si waat waaye comme dañoo war a ubbi koo ñaan fas yéene lii ma wax tàmbali teg xeer bi ñaan yàlla fekk ci liggéey. danañ joxe ñaan ndax xam ngeen ni jago doy baare képp macha allah buñ mujj kenn def danaa ci dellu si waat. nee ñu Serigne Cheikh Kajoor Serigne Bassirou jërëjëf ci turu Serigne Saliou la Serigne Khadim ceeb bi sëriñ Amar Fall Mbacke amoon ak sëriñ ak Mbacke sëriñ am fu ñu toll di ko suuxat kon sëriñ Cheikh Kajoor sa njaboot mais muy municipalité engagement yi ñu lay jox mooy fas nañu suñu équipe municipale bi ànd ak yow gunge la ci bépp projet boo xam ni yaa ngi ci nekk ñu ngi ñaan yàlla suñu équipe municipale bu ñu demee ba suñu mission di jeex fii nga boole boo ñu de xam ni penc bi def nañ fi loo xam ne si benn équipe municipale bu ñu fi jiitu ko fee def loolu mën a wax di ko yàlla mu dem ci lii nga xam ne si la ñu koy teg muy xeer bi tey ñu ngi ñaan yàlla yàlla boole jàkkee ji ñuy nësër ci jumaa yi mu agréé jumaa yi nga xam ne si yàlla nangu na leen di yàlla. mu yegg te ñu fekke ko bind ko te ba ñuy ba ba ñuy yàlla wala buxtaan mu mokk ci place yi nga xam ne si place yu barke la. te ñu saa am loo xam ne dafay dugg te ma di ko wax te ñu bari duñ ko dégg dama leen di wax la terre de Kébémer est une terre bénie buntu barke la loolu mu fi wax. la tax sunu maam Serigne jóge fa mu jóge woon di topp la muy topp ba ñëw fii sos ko. ku nekk Sénégal boo xam ni yow néewoo ma demande li ma dangaa bëgg am kër Kébémer kon boog suuf soo xam ni si yàlla defal na la ay barke nga am ci ay firnde dund ak nga xam ne si ñooy xeet nitu barke ak ñoom ci mission nga xam ne si ñu koy am maa ngi leen di gërëm leen sant wala njabootu sëñ Xaadim aw ko képp ñoom ñëpp ku nekk ci ay la ñu daje ko ñu garanti ñoo ñu ñoom jan nga njëkk jëf ji sëñ Bass mi wax naa ko cent millions ya waxoon sëñ Saliou tey jii ne ko gën a wax parce que yéene def cent millions ci liggéey bi génne ko na cinq cent tonnes ciment li Pape Cheikh dina ko jox par cent tonnes cent tonnes ba tamit mat lépp lu dem liggéey ba cent millions yi di bay du du ko bay ndax xam nañ nag mi ngi def lu baax fu ne waaye kii mu ko defee moom ndax xam sax nag romb du cent millions waaye du nangu sa cent millions war tax na am ci yéene kon ñu wax ni euh, nga xam ni kon euh, sëñ bi ci yéeneem dañu waat sax architecture bi ma defaroon baax na waaye gën naa bëgg mu gën a baax mu dem wënni ay rakam Touba ngir mu xoolal ko jumaa ya dàq Touba yan architecte la yóbbu jumaa ci ak Akim ak jumaa sëñ Cheikh Sall bi nga xam si ne jàmbaar la mu ci architecte boobu la ñëw ñu ngi koy liggéeyaat ba léegi nit ñi jumaa dana mel leneen boobu lay doon kon gis nga yéene ji nii gën a te estimé nañ ko ci ëpp 200 millions moo fas yéenee liggéey jumaa ji kon jumaa ji nekk na loo xamante ni lu am solo la kon sëñ bi ñu ngi ci woon ñëpp moo ci jiitu kon kàddu bi daal naa ko njëkk a leeral kon xam liggéey bi ni ne tey bi nga xam ne moom la borom dëkk bii moom la muy sama mag bu baax bu kenn rek yaram la sëriñ Xaadim Awa Ba Cheikh Mouhamadou Lamine Ba mu sëriñ Tuuba kon sëriñ Saliou maa ngi lay nuyu maa ngi lay ziyaara yaa njaboot gi nga jaboote yëpp ñëpp nag xam na seen tur ay su ma tuddee sëñ Modou Balla rek doy na sëkk nga xam ne tey bu ne dégg na bu ne gis na li nga xamee ni noonu la toppee ci sa ginnaaw kon daal koy nuyu di ko ziyaara moom itam di nuyu di ziyaara kilifa yi nga xam ne yëpp fekk na leen njabootu am seen tubaab yëpp bàyyi ci kenn waaye maa ngi nuyu sama doomu baay Alxaaji Lamin Jaan di maire bu Kébémer muy ku baax di sama xarit di sama soppe di sama boole maa ngi koy wax léegi sëñ Mour Baar di nuyu mboolem koo xam ne kii fekk naa ne fii mu mel na nag wax ji. mën na tudd mën na gàtt dañoo woote lan bépp xeer juma juma di nekku yàlla boo xam ni hmm? sëñ Saliou moo ko woote ànd ak njabootu bi sëñ Cheikh Aliou ba yëpp man man yii la waaw. sëriñ Cheikh. sëriñ maam Cheikh woo. wax ma ko. fekk ba mu sori naa lool sax. waaye ma ne ko bu soobee yàlla dinaa ñëw Dakar te su ma jógee Dakar dama ñëw rek dama ko incha allah. te man ku ma xam-xam ni bariwul lu may manqué ci yu mel nii waaye yaakaar naa ni depuis pandémie bi ba tey. kenn gisuma fenn du benn dëkk na loolu yàlla defal na ma ko mën naa ne teg bii lay soog a génn li tax nag ma génn mooy fii dafay sama kër dafay sama dëkk ki fi nekkoon di sëriñ Xaadim aw ba Mbàkke doon sama mag waaye nekkoon sama xarit mu daañu na seede seede yu rafet ndax ku nekk daje nañ fii fekk si naa ko ba tey fekk nay koy Touba ba tey waaye ku ma gis rek def na ma ni ñoo bokk bàyyi mu nekkoon lu soriwoon ci sama xol rek. xam naa kenn du ni yow doom de xamul am naa lu ma xam ci sa baay ci sa waajur te xamoo loolu du neex a dégg waaye bari na lu ma xam ci seen xarit Maodo ba te xam naa ne bari na njaboot nit ku màndoo a dimbalee ngoo nit ku fonkoon doomu aadama wax nañu fii léegi ni mu meloon ci dëkk bi. ki ko doon wax benn baat rek la manqué leen waaye ku fonkoon lislaam loolu mën na ma xam man ku ma xam xam nga ne Seydi El Hadji Malick moom yàlla waaye nag man ci lislaam bi ñëpp laa féete kër Sëriñ Tuubaa amul kër koo xam ne jii xaw ma ko yàlla dimbali na ma ci loolu waaw ndax te eh, damaa am lu bari moo xam ci man Sëriñ Tuubaa sama baay alaaji Amat Sise Pir sama baay alaaji Amat Sise Pir dama yàlla baaxee woon ma daan ànd ak moom di dem ci njabootu Serigne Touba ji bare kon bari naa lu ma ngi xam mu mel na loolu du tey démb la kon bis ji nga xam ni Sëriñ Saliou ñu ngi ko woote ngir taxawal néegu yàlla bii l'islam bi yëpp lu ci war a l'islam bi yëpp lu ci war a taxaw di yàlla niñ koy tegee tey incha allah yàlla yàlla ba ñun ñëpp ñu fekke ko ba ñu mën ko ubbi ñun ñëpp ñu fekke ko yàlla bàyyi ko ci kanamu njaboot sëriñ Saliou ku baax waaye yooyu yëpp man dama wax ni ñoom yëpp ku ci nekk yaa ngi jàppe rek ci sa waajur ndax maa ngi fàttaliku ab at sëñ Basiru muy ndeysaan ma ñëw ci gàmmu Cheikh Abdoul Aziz màggal ca awo keroog dama yéeg oto di wàcc yéeg oto di wàcc bu delloo boo ñëwee

kon ñoo ngi sant yàlla bi ñu yàlla boolee ci jataay bii man de xam naa ni ku ci dugg bismillahi arrahmani arrahim wassalam sayyidina wa mawlana muhammadin almakin wa ala alihi wa sahbihi ذوي الرضوان والتمكين إخوة القرابة السلام عليkum wa rahmatullahi taala wa barakaatu yéen mbokk yi jullit yi yi nu bokkal sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam yéen mbokki taar bi yi nu bokkal pas-pas ci Cheikh Ahmadou Bamba ridwanullahi taala alaykum yéen dëkkandoo maa ngi leen di nuyu ci turu njabootu Cheikh Mouhamadul Amin di nekk ci bopp bi di Cheikh Mouhamadul Moustapha ibnu Cheikh Sidi Mokhtar ibnul Amin ibnul Xadim Cheikh Salif Mbacké jiitu Cheikh Moustapha ak mbokk yi nga bokkal Cheikh Mouhamadou Lamine ak ñi nga bokkal Sëñ Tuubaa ñëpp ak ñi nga bokkal l'islam ñoo ngi lay nuyu di am mbégte lool ci turu Cheikh Moustapha ñëw ànd ak yow bis bii nga xam ni ci doon wax ci sa tur daf ni bis la boo xamante ni bisub sa wayjur la sëriñ Aliou Awa bisub sa maam la Cheikh Mouhamadoul Amine ku tudd Cheikh Mouhamadoul Amine tudd sëñ Touba tudd sëñ Touba tudd l'islam li ci gën a neex mooy eeras ko waaye muy nga tàmbalee di ko sagale di ko siggale sa wayjur sëriñ Aliou Awa njaboot bi yëpp dañoo àndoon ci teewaayu sëriñ Abdoul Aziz Cheikh Mouhamadou ak Cheikh Mouhamadou Ami Cheikh Mouhamadou Hafiz jël barab bii nga xam ne barab bu sëñ Baara fonk ñoom ñëpp ñu maase ànd teg ko ci loxol yu ma sëriñ Xaadim waaye bu jël suwaatoon tey bi xam ne teg nañ ko ci yi ko mat a teg sëñ Moustapha na bu baax ci taxawaay jëmm nga ñoo xam ni da ngay symboliser lu bari ci diine ci ak taalibe ci ngor ak ci jom ak ci dignité tagguma la de damay wax li xam li ma xam ci yow li ma gis ci yow loolu sa bopp ñëpp moom lañ xam ci yow génération yu mujj yi ñu ci bari xamuñu kan mooy Serigne Khadim Awa Ba waaye jëmm nga joo xam ne ku la gis xam ne ku la meññ ku ne war nañoo xam na mu meloon ak ca la mu nekkoon ku matul du la meññ ku tënkuwul ci diine ku nàmpul ci ak taalibe ku amul jom amul ngor kooku mënu laa mel ni sax yaa ngi nga ni sëñ Faari Kaw ba ñëpp référence la ci xam le kan mooy sëñ Faari Kaw ba waaye li ñu fi indi tey nag mooy taxawal barabu néegu yàlla subhaanahu tabaaraka wa taala te wa annal masaajida lillaahi falaa tad'uu ma'a llaahi ahadan ci doon wax suuf daf ni Eh, almasay almadaris qabla almasay loolu dañ koy firi jumaay mooy ji jàkk barabu jàngukaay bi njëkk a taxawal njëkk ngay taxawal barabu jàngukaay yàlla man de personnellement ñu baal ma ko waaye sama tànk yi fii la lool bi ma fi mujjee école bi ñu doon teg xeer laa fi mujjee kon al madaaris xab al masaajid bi ma fi dellu siwaat jumaa ji ñuy teg kaw xeer moom laa fi ñëwaat kon loolu muy firi al madaaris xab al masaajid sëñ Saliou sa taxawaay rafet na sa lépp diina la say bokk sant nañ waaye itam nag sëñ Moustapha bi ñu sant ñii nga bokkal sëñ Xaadim Awa am na ko ko wax seen diin loolu waxu sëñ Tuubaa leen firi daf ni ñoom def nañ ci lu toll ci 40 millions te ab tàmbali la te gis nga sëñ Tuubaa والأب حقا والخليل صدقا أندل من كل خليل حقا مذكرا وهو الذي كقول من جلال خلق إن أخاك الحق ليصحبك sa mbokk dëgg mooy koo xam ne loo nekk mu nekk inna axaaka alxaq man yasmaa maak mu tekk ni wa man yaddu nafsahu li yanfa ñoom nee nañ def nañ ci 40 millions ku ci nekk am na foo ko dugal waaye dugal ko fii ci bis bi kon moo la gënal kon wa man yaddu nafsahu li yanfa loolu itam daf koy firi sëñ Saliou sant nañ la bu baax sa bopp bi seen xel dal na seen yaakaar dolliku na taaliba yi itam ngeen gën a góorgóorlu gën a takku barab bu nekk ña ko yaakaar ñooy fondement wu kër ga ñooy ñu koy dëgëral ñooy ñu koy téye te li am solo mooy li sëñ Tuubaa woote ñu nekk ci kër lépp di diine di ngor di di di di di féeteeg yàlla kër bu ci nekk ñàkk nekk ci ay taal bi ñoo ñeme leen sëñ Tuubaa seen takkaat leen seen laxasaay gën a góorgóorlu ci irshadaat ak tawjihaat sëñ Saliou Mbacké bi bu ngeen ko defee du ngeen juum du ngeen tegloo seen tànk mukk fu ngeen a teg ci diine du ngeen wax mukk loo xamante ne bakkan la ngeen ko waxee te sëñ Tuubaa mooy wéeruwaay bi wér te moo ko waxal boppam ku liggéey bi ci sëñ Touba rawatina ci jamono jii ñu toll kenn ku nekk am nga jaaxle yaa ngi fëgg sa koo xam ni yaa ngay ànd ak lu nekk loo xam ne mu ci nekk lañ ci jublu mooy lu la ci musal masque yi ci raxasu yi ci la alkosel yi ci loolu yëpp koo gis mu def ko bëgg mucc rek a tax sëñ Touba def ni woon amarani bi an bi anni malaasun wa ma sax sëñ Touba def ni suñu borom moo yow Ahmadou Bamba léegi nit ñi waxal nit ñi ñu leen man Ahmadou Bamba muccukaay laa làqukaay laa rawukaay laa ku bëgg a mucc la ngay làqatu sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa dax fa man araada al xayra fii kiltay daarayni fa yellus bii man Ahmadou Bamba maa ni ku bëgg a mucc àdduna ak àllaaxira na ñëw wéeru ci sa na ñëw wéeru ci man Ahmadou Bamba bu ñu bëggee mucc bu ñu bëggee raw bu ñu bëggee jàmm tey ëllëg naan ànd ak Sëriñ Tuubaa tamit dëgg jula jërë ngeen jëf ci turu Sëriñ Moustapha jërë ngeen jëf ci turu bokk ñi nga xamante ni sëriñ bi moom ñoom nga bokkal Sëriñ Baara jërë ngeen jëf ci turu bokk ñi nga xamante ni ñoom ngeen bokkal Sëriñ Tuubaa ak ñi ngeen bokkal lislaam ñëpp sëñ bi mi ngi yaatal ñëpp ci xolam ci gënnam di dalal ñëpp ci dund xolu boppam ñu leen yéene jàmm yéen it ngeen ñaanal sëñ bi xaflatu iftitaahi xeltal masjid ñun ñëpp ñu fekke ko ànd ko moom nii mu ko sose ñu ànd ko moom ubbite ka ci barke wa is yarbahu ibrahimu alqawaida min albeyti wa ismail rabbana taqabal minna innaka anta samiu alim wa kammilan كلما ننقو ونقصده وهب لنا كلما نختار يا الله والسلام عليكم ورحمه الله Sénégal yëpp le sëriñ Moustapha noonu lu ñuy féetoo ñëw fii lu ñuy waxtaanee fi ne buy bind gépp bokk lay bokk bàyyi benn bopp nga wax leen wax jii te te jëkkul ñu ngi lay. wasalaatu wasalaamu ala ashraf almursalin سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وخديمه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokki جلدي yi mbokki taalibe yi ginnaaw سبحانه وتعالى si جلاله وعز كماله

di ko sant bu baax ci taxawaayam di ko ñaanal gudd fan ak wér. man Aliou Sëriñ Modou Bara ah sëñ Modou Bara la wax sëñ Modou Bara waaw ah, doomu sëñ Xadim Awa la sëñ Saliou doy na sëkk référence ñun ñëwoon sëriñ Xadim Awa xam ne moom yàlla bu baax a baax moom kon yow li suñu borom subhanahu wa taala tànnalee sëriñ Saliou ah, man sa patron ma booyal sa patron mooy jour bi suñu des di joxe kii taxaw ci taxawaay boo xamee ne ñun njabootu sëriñ Xaadim Awa Ba gi bu sëriñ Xaadim Awa Ba nekkoon mënut a weesu bi ah. taxawaay bu mat sëkk boo ndax comme ni ko jiitu waxee bi ci sëriñ Xaadim bi jógee ñi si ñun ñi ay tuut tànk rek suñ ñeen ñu si seen alxuraan école mu taxaw taxawaay bu mat sëkk fexe ba suñu alxuraan egg mu taxaw ñu jàng si xam-xam li ñu war a jàng lépp mu yar ñu yaru lislaam ba kenn ku nekk foo nekk man faa nekk am si xaalis waaw loolu nag ku la ko defal amoo too ak fayam kon ñuy seere ne ñun ñii jabar sëriñ xaalis waaw liñ dund ak sëriñ saali ko buñ ko génnewul nekk li ko nit ñi dañ am lu ci xam waaye ëpp mënuñu koo xam euh, man nag sama dafa am fu mu li ma amoon yéene waxtaan waxtaan bu yaatoo yaatoo yaat ci njariñu jumaa ak jëf ngir yàlla ni mu ci diine waaye ginnaaw temps bi dafa nag lool te am na ñeneen ñu ñëw waa sànni ay kàddu man dafa am feneen pour ma fi ma soxlaa foofu laa bëgg a jëm may wax ne mbooloo mi lu baax moom ku koy jëf yaa ko moom te fan ko soxlaa fa ko nit ki di soxlaa ëllëg buñ ko ko fayee rek dana sant boroomam bu baax te xeeb nit jëfoon ci bu baax ndax jamono yi fii ñu toll muy mel ne am ceebo ceebo buñ ko waxee baykat yi daana ko xam muy bët seddee ba tooy xëpp yàlla dogal nga am saw jiw bu doy sëkk fexe koo ji balay bala balay bala bàq bi foofu lañ toll tey jii ma bëgg ñi ñu yor aw jiw ñu fas yéene ñëw ji ko fii te xam na lu fi waay ji dana sax incha allah rabbi dana meññ dana ko moom lu fi waay ji tey jii ma bëgg lu waay am te bëgg mu dool ko aw yu mu réeree ëllëg nañ fas yéene ñëw jëf tey jii si lii ñu woon te nag am na fu may sukkandiku nag te waxaluma sama bakkan tamit ndax lu benn njaboot Serigne aw ba tànn la ne yaa ngi doy si bii soññee ñu ko loolu du lu ndaw ma bëgg muy góor muy jigéen mag ak ndaw xam naa ne képp ku ñëw fi am nga ay képp ku fi ñëw am nga itte bu la jël bu la jël bu wér cën nga xam ngeen ne sëñ Bara Mbacké gay nekk itte la woon te kan kan ma dox sama digganteeg moom Serigne Fallou Aw rek moo dox sama diggante ak ma bëgg a jaayante yéen nag. ngir jëm mi man am ma benn daraja nag yoruma benn ma nag. sëñ bi waaye ñi nga xamee ne ku woo si seen rek gaynde soxla la woon. te kuy wàll tamit day say jiir li ma soxla nag moo ko waxee jii ñi xamul Serigne Touba seen dën dana waaye ku xam Serigne bi nag moom dana si yow tooy da xam ne du dara Serigne Touba kenn si boole bi sax mën na ko def li ma soxla di ko laaj bu ma ko waxee ñoo xam ne seen dën dana waaye ku sa dën rëcc rek ne ubbi la nga Serigne te incha rabbi day ndax am na benn benn yoo xamee ne sañ naa leen a laaj te ñooñu daal nañ sama xam bi bala may ji mu tàmbalee waaw sëriñ Saliou Dione mi joxe woon un million di nijaay ci sëriñ Moustapha Mbacke ak ah doo doom di nijaay sëriñ Moustapha ak sëriñ Bass moom bisag bi wootee rek joxoon na sëriñ Moustapha un million sëñ Moustapha indi na ko moo tàmbali enveloppe bi sëñ Saalum jërëjëf. si si sàkkoo ma ne incha allah rabbi danga am xéwal yaa da nga yokkuwaat baax baax moo bëgg nag ñu jaarale ngir jëm sëriñ Tuubaa ndax lii rek mooy liggéey lii ndax nit ki boo ko bëggee jariñ da koy jëfloo nit boo ko bëggee jariñ da koy jëfloo ndax kat jumaa ji ñuy woote toogu ñu na yàcc rek Serigne Saliou mi xalifa bi yëkkati na 31 millions def si xaalis bopp boo xam ne moo ko liggéey Serigne Bassir mi toog taxaw jàkkaaroom nag nee na dina joxe 100 millions te joxe gu na 500 tonnes ciment yoo xamee ne tàmbalee na si jumaa ji kon ñun xam nga ne luñ ci doon rek day kon nag li ñuy laaj bu koy laaj. bëgg a jariñ ñi fi teewoon moo tax ma koy laaj. bëgg noo dimbali rek. waaye wallaahi buñ toogoon ñun dara ko def. billaahi. sikk sàkko buñ toogoon dara ko def. am na ñoo xam ne ñoom laay dëgërloo tàmbali yëf yi waaye kenn du ma si jiit. nga ni. waaw kenn du ma si jiit. ndax day day mondial. day mondial day mondial. foofu laay bu ko defee. ñëpp ñëw. sëñ boo noo joxe. tàmbalee naa ci base bi cent mille francs. bi la tàmbalee. leen ko ba mu mat sëkk ñu teg ko si taawal. bokkut ak la mu jëloon décision ca kanam sëñ Saliou. loolu moom sëriñ Basiru xaal aw ba nee na nañ ko bind sañaa si jóg bind ko nee na teg na si téeméeri junni léegi buñ génn dana ko def bokk tagi bu jaxawan bokk tagi bu jaxawan man la ko jàppale waaw cinq cent mille waaw wañu leen doon ko def bu matul moom ñaar ko def fekkee koo joxe na cent mille waaw ñu jàppale Adja Ndeye Gueye joxe na dix mille francs mi ngi nii Adja Ndeye Gueye dix mille hmm. euh,

Serigne Moustapha Mbacké. salaamaaleykum mbooloo mi. ndax bu ci li muy liggéey. am na nu mu am na nu mu ko bëggee. 5 millions la soxla jotaay bii waxatul la ñëwoon waxul ci jiw ci caabi kon nan tey ndànk di ko def ndànk ndànk. merci beaucoup. Mouhamadou Lamine Thiam maire nee naa joxe cent mille francs. Sidi Lo Sidi Lo kenn ku ne xam nga seen baar. sëñ Cheikh sëñ Cheikh. Sidi Lo jox na une tonne ciment. Sidi Lo. sëñ Cheikh. Sidi Lo woo na ma léegi jox na une tonne de ciment. tey sëñ Cheikh sëñ Cheikh sëñ Cheikh. Eh. voilà voilà voilà. kon mi ngi wax Mouhamadou Lamine Thiam maire cent mille francs. ñu naan Fatou Fall nekk ca Amérique ba léegi ca Sidi Mbow ca Sidi. c'est ça cent mille francs waaw Fatou Fall moom la ci man li nga xam ne ba léegi ca Sidi cent mille francs. sëñ Bassirou Mbacke joxewoon na un million si bi sëñ bi wootee joxewaat na cinquante mille léegi ci yow. Cheikh Bamba Fall moom damay jàkkaarloo moom ndax moom tamit bokk na si ñi nga xam ne samay gars yi bokk nañ te bu ma leen laajee duñ sa def Cheikh Fall moom cinq millions ngay laaj bokk nga si ñoom lay dëgër loo ñoom lay dëgër loo lan ngay def ah. Serigne Cheikh Bamba. waaw. un million. sëñ Abo. Aliou. Serigne Fallou Mbacké. moom Serigne Abdoul Khadir moom Serigne Touba Khadimal Moustapha ak si nekk jotaay bi ci ndigalal Serigne Moustapha Bassir. mbooloo mi. Serigne Fall déglu leen tuuti ànd ak dal Serigne Fall Mbacke mu sëñ Abdou Khadir moom la sëñ Moustapha yebal Serigne Fall Mbacke mu war a def tey bi bu ñëwee ci kaw. ak si na dana su fekk Serigne Abdou la garam xalaat bàyyi ko kàddu gay Ibrahima Dieng sa na ba joxe na cent mille digal kër yi joxe na cinq mille mais damaa bëgg ngeen ànd ak dal am daanaka jotaay bi amuñu si kàddu tey ndax jotaay bu say rakk nekk fa yëkkati kàddu yoo xam ne mënoo ko. toogal toogal ba li jeex. ci rafetaay. ci ànd ak yar ak teggin. ci jekk. jàpp naa ni war ko fa am dara wax lu dul sant leen gërëm di wax mbooloo mi tey ni leen. Sëriñ Xaadim aw vendredi 15 février 1991 la fi jóge woon bi mu fiy jógee ay bi mu jee yëkkati ci kàddoom mooy ittaqullaha xaqa tuqaatihi wala tamuutunna illa wa antum muslimuun daal ni Modou Baara may ma ndox sëñ Modou Baara dem di indi ndox avant mu ñëw mu wàcc liggéey booba ak léegi ren nekk fanweeri at ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين fanweeri at yooyu la yàlla waxoon ni dana ko am ci biir suuf ñuy doog a yëkkati jumaa di ko tabax ci ndigalam ak ci ay ndimbaale te doomu aadama bu génnee àdduna jëfam yépp day dog ida mata al insanu in xata amaluhu illa min salasin sadaqatin jaariya aw ilmin yuntafau bihi aw waladin saalihin yad'uu lahu jëfam yëpp day doog ba mu des ñetti daara joo xam ni tabaxoon na ko ñu day jàng damay wax ni li ko Serigne Khadim dénkoon lépp matal na matal weesuwul

fonk ñu lépp Serigne Saliou lépp moom la du kenn ñun Serigne Khadim Awa duñ ko sant dañ ko ñaanal yàlla waaye sant ak ngërëm kii lañ ko ko def bu nu ñemee tey Moustapha yi mën a taxaw yëkkati kàddu yi mu yëkkati sëñ Abo mën a taxaw yëkkati kàddu yi mu yëkkati te ñoom ñii bi fi Serigne Khadim Awa di jóge muy 1990 la boole sëñ Moussa Aine maam Cheikh Serigne Cheikh Latalène nii ak Bass mu daw dox leen Cheikh que yàlla na ko yàlla yërëm mu ni yóbbu leen Kokki dox leen sëñ Makhtar biñ ñëwee sëñ Makhtar la woo ma ma ñëw mu ne ma ñii de sa bàyyi leen fi indi bëgg mooy ñu ma ko alxuraan ma jël sëñ Moussa Aine ak Cheikh Latalène ne di leen jàngal jël maam Cheikh ak Bass mu daw dox leen sama beneen xarit waaye tey jii mën naa ne bu dee alxuraan kenn dàq kër sëñ Xaadim Awa boo fi gisoon kaamil alxuraan boo xam ne amul doxal amul jukki amul dara koo ko jox ci gën a tuuti mu defar la loolu lépp sëñ Saliou moom sëriñ Saliou yow mënuñu la fay sëriñ Fall dañ fay dikk ci turu sëriñ Mountakha te inna rasula bi xadri mursal jëmmi sëriñ Mountakha lañ lay xool ndax yàlla na ko sëriñ Tuba sëriñ sëriñ Tuba doon ñaan borom ni ko wahab lana zurriyatan tudimu al amala saliha ya qadim zurriyatan tayyibatan tujaddidu nahja nabiyyil Mustafa tattahi da ngaa bokk ci sëb yooyu kon tey bu la sëriñ bu ndaxaa yemale nga ñëw fii ñun dañuy sant yàlla ndax moom fu mu mënta teew yow la fa yóbbu boo ñëwee nag ci penc nii pénc la moo xam ni alxuraan ngor lislaam diine ak bëggante soppante moo fi am lépp jëmi sëriñ Saliou man bu dul woon ak moom kon tey noonu du ma taxaw fenn kenn di wax ma di may wax kenn di ma dégg lépp moom mi jumaa ji wax na ko léegi Sall mu ne boo ko bëgguñ ko def ñu waxtaan ak Serigne Saliou ci bëgg lu baax bëgg yërma bi nekk da ngay jihaad dani inni ujahidu bil ulum wa bit tuha abdan khadiman wal muhimmin shahid sama jihad mooy ragal yal xam-xam Serigne Saliou ci loolu nek nek ci lene ay daara bo génnee tund wi sunu rak yi nga fi gis yëpp ko ci sëñ mourba Ba yëpp am nañu daara te lépp ci ndigalam ko Serigne Moussa yi noonu Serigne Abo noonu Serigne Cheikh Mataley noonu Serigne Moustapha imam mi taxaw noonu te mën naa ne suñu kër juróom-benn imam te kenn te imam ay qualité lañ koy tànn kenn du ko tànn ci sant kenn du ko sant juróomi jur wala juróom ay jikko ak xam-xam lañ ko tànnee te qualité yëpp bokk na ragal yàlla ak xam-xam ak dañu wéree ci diine te fa tabaarakallaahu loolu yàlla defal na ko kon Serigne Saliou délégation suñu Amadou Makhtar nii man ba nga demee seen Moussa mi nga xam ne mooy sa kilifa te Serigne Touba wax ni laa taxawalu sanan li xayri ismin fa ismu sartul fi xabuli sëriñ bu leen jëf dara lu ànd te ndigal ndax jëf mu amee ndigal sart la ca la ngay jëf suñu borom nan ko ba nga ko laajee ndigal dem ci sëñ Mountakha bu yabal sëñ Fall nga dem ci Amadou Mokhtar bu yabal sëñ Mouhamadou nga dem ci Moussa bu yabal sëñ fii ak sëñ Modou Baar kon day wane ni yow day say kilifa nangul nañ day wane ni yow say kilifa nangul nañ da li nga nekk te nawloo nañ la te am nañ ci yow yaakaar te wóolu nañ la te doyloo nañ la. sëñ Cheikh dama jël si booy dugg si ñu lay ak moom ànd ak seen faara mu rafetlu si. waaw sëñ Abdou Mouhaimine sëñ Abdou Mouhaimine sëñ Abdou Mouhaimine mu sëñ Mourtala mi ngi fi sëñ Cheikh Kajoor di wan la def sëñ Xaadim Awa ba turandoom ñuy di teg sëñ Xaadim tudde ko doom kon sëñ Salim sa njaboot ak ñun bëgg lu baax bëgg luy defar kër gi luy rafetal kër nga xam bu ñëwee day effacé wu bëggul daañu soxlawul jël soxlawul dara day toog fee jàpp njàmbaram moom Serigne Abdoulaye Sy ci ay xar-xar la waaye bu ci nekk loolu kenn du ko jiit fii ci jotaay bi ndax yow yàlla defal na la say rakk yëpp na léegi la ko keneen jikko la ndax yàlla bi muy tag yoon tamit dane ko innaka laa la xuluqin azim yow de yaa dina kawe lépp jikko te way toon naa dafa wax innama al umamu axlaaqu ma baqiya fa innahum dahaba axlaaquhum dahaba askan yi ak xeet bi bu seen jikko yu rafet deexee yow bu leen échangé génne nañ ko. Hmm. kon boobu ñaari bi. waaw xam nga doo baax la. nga ànd ak say daal nga ànd ak say rakk nga ànd ak say màggal nga ànd ak say xarit ñi sa bàyyi ñu doon Mamadou Sall da ngay toog ak ñeneen ak ñeneen ñëpp nga xam ne ñoo faral di ñoo ko ànd. ku ci boo boo gasoo ñëpp toog sa te loolu si di ko mën seen xarit comme si jógee ñàkk 91 ak léegi du benn fan du ñaari fan waaye tey jii ñoom amoon depuis 91 bu si jógee ba léegi kenn bàyyiwul kenn am na noo xam ne boo ko doxalee woon wala nga teg foofu sa tànk wala nga am looy xool wala nga am looy gisee boo gasoo doo gis kenn ndax nit ñi seen bopp lañ jëlee lépp te ñàkk ñu fa la ñàkk ñu fa la ngor bi nga leen téye diine di ngeen a téye jikko yu rafet di ngeen a téye moo tax ñëpp bëgg la ñëpp fonk la ñëpp naw la lii nag ba mu ko desee yàq na waaye yàlla ngeen koy dox dox loo gis ci àdduna dafa am bàpp am waxtu am heure am jamono am temps yàlla ngeen koy dox doxal ndax boobu suñu xaalis jógee ak léegi wax naa ko léegi vendredi 1991 la woon mooy 15 février te yàlla defal ko taw fépp si jóg bi ko waxee seen soin bi seen soin bi dafa wax nii xaalis sama bopp rek amati yabal seen abib moo ñëw defal ko ci loxo boppam sëriñ ko ba mu ko jullee génnaat ko doy wàcc kon kooku ko waroon ci diggante mooy yow mi nga xam ne yaa ngi ak taaw fi jógee marag la fekk muy tax la fekk muy tax fi jógee lañ la woo toog na benn fan ñaari fan te jamono boobu jamono bi tamit moyen de transport aérien amul góor ba saa su ñëw ba liggéey ba léegi su nga tegul ci tànk dara soppeeku dara sant kon mbokk yaa ngi lay sant mbokk yaa ngi lay gërëm say rakk nga lay sant ñi ngi lay gërëm li suñ amoo doon laaj nekk nag mbokk yi continuer ndax lu baax man amila saalihan min zakarin aw unsa wa huwa muminun fanuhyiinahu hayaatan tayyiba wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun lu baax moom koo jëf moo xam góor la moo xam jigéen la yàlla dana ko fay te yàlla mu wax ni wa anna laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura summa yujzahu jazaa'an awfa yéen a nit ñi tawfeex yéen a leen xéwal moo tax nga def te julli te julli dañuy wax ni al qabru zulma wa sirajuhu as-salat bam mel dafa la doon tërësi waaye bi si muy duggee lumière ba koy leer mooy jubóo loolu la la suñu xam ne toqoon loolu sa doom boo xamul la say la waaye say doom kenn ni mu sab daal ni mu ndax xam nga li ci yàlla wax te yàlla ba mu yónnee keroog leelatal isra wala nee laaj yonente bi sallallahu alayhi wa benn sëriñ la ñu nii ñaari sëriñ la muy alxuraan ak julli te julli dafa bokk ci ponk yi nga xam ne dafa am solo kon boo taxawalee jàngukaay ينتج وحيهبك الكتين عارفوني قبل أن تعبدوني فإن لم تعرفوني فكيف أن تعبدوني yàlla bu ngeen ko xamul du ngeen ko mën a jaam lépp ngeen fa jaam da ngeen fay xam sa maam Serigne Touba wax ni yaa ayyuha subaanu in xiftum xaja fa xaddimu taxalluman ala nga jiital sa lépp ci tabax ay daal nekk ni si ñetti at wala ñeenti at ci gannaaw boobu bi daal di kànd def ci ay millions ubbi ko ngir ñu jàng alxuraan say nag yëpp di la roy ci loolu nga ñëw di tey am yéene tabax jumaa joo xam ne lu ma lu néew néew néew néew dana mat milliard loolu pas-pas la ak engagement ak volonté te nit ñi ci seen i pas-pas la ñu amee lañ bëgg almaru bi yatiru nit ki ci pas-pasam lay amee lañ bëgg imaam Cheikh Gueye gis nañ baax la koo xam ne foo toll bay wax da ngay tudd seen mu bokk ci say rafet moo tax xam-xam lan moo tax di koy ndax yéen ñi nga xam bi génération bi nga xam ni tombé woon ngeen moom jàmm nekkoon doon jàng xamoon ngeen ni bëgg xam-xam. salaamaaleykum yàlla ñu ko gën a am gën ko ragal man bëgg a jël grand écran boo ko téye nii man may dugg sax Saliou laa bëgg a jël ak sëñ Fall te moom ñu man arada aaxira fa yaqra al-Qur'an man arada huma maam fa yaqra al-Qur'an ku bëgg àdduna da nga jàng al-Qur'an ku bëgg àllaaxira da ngay jàng a boole ñoom ñaar da jàng alxuraan te fa nga def kon imam Cheikh bi ñu ngi lay sant di rafetlu sa teewaay. jërëjëf toogal jëm li nga léegi waaye da ngay jonkan comme nii. yaa ngi woote bis bu mel ban waxtu la Serigne Maodo Cissé ñu ngi lay sant di la gërëm bàyyiwu kenn suñu xol seet na gërëm nañ yàlla na fi yàlla yàggal yàlla yàlla dugal soo xam ndax lii kenn mënu la ci lu ci nit def rek lu ci nit def muy sarak yëpp lu ci nit def rek xamal ni si jëm ma tax ndax kenn ku ne yàlla yàlla yàlla defal ci moom defal ko moom mën a jaxasoo mën kon ñun lu ñu am rek yow lañ ko sant luñ mën yow lañ ko sant jumaa ji liñ ci def fatabarakallahu ci ci def ndax xaaral kenn yaay te dañuy wax ni kilifa al mas'ul day ñëw mas'ul yaay responsabilité ñu mën naa responsabilité responsabilité nag ñu jaage yi toog sa kër. yëpp sa njaboot sëñ waa Kébémer. jërëjëf waa Kébémer. waa Kébémer leen di sant ndax sëñ kenn du wax sëñ Xaadim guy kenn du wax sëñ Xaadim beneen dàkkantalam mooy Kébémer waa Kébémer mënuñu leen a fay ndax daayira yi fi nekk ñëpp benn jëwriñ lañ am génn kilifa lañ am benn référence lañ am. ku ñuy déglu ndigalam kenn la muy Serigne Sadou Khady Mbaw ñu dajale lépp muy fédération bi dénk ko Mourou Seck nii nga xam ni tey lépp lu fekk yëngat kenn du leen loolu nag suñ ci moo tax mu àndee ñëpp ci noonu kon waa Kébémer Serigne ñu leen di sant tur yi wër Kébémer Serigne Saloum ñu leen di sant région de Louga Serigne Saloum ñu leen di sant daayira Mame Diarra Serigne Saloum ñu leen di sant bàyyiwul kenn monsieur le maire Mamadou Demi Thiam dégg nañ ci yow. ndax yow sunu xarit nga te wëllëre nga nit ku baax nga xarit Serigne Sall mii nga kër gi jamono yi nga xam ne ñu ngi ñaan kenn dawal ci yàlla ñu baas yi luyee sees boole sa say teraanga boole ko foog équipe municipalité bépp mettre ko disposition commune d'organisation kon tey boo ñëwee taxaw yëkkati kàddu yi nga yëkkati tey xam si diggante Serigne Sall wu dégg la barki dem ñu sant

génération bi nga xam ne seen xaar yu aw moo leen toog te loolu yi foog naa war a ko fàttali nañ ci kon yal na yàlla gën jàppale yal na yàlla gën taxaw yaakaar ci dëkk nga am ci nga am rek ñoom yaakaar ci dëkk yàlla ndox mi jëm ci ñu géej gi daawul a sëy borom kër bu ji kenn waru tubaarkalla nekk na Fatima Dem. Baye Fall Serigne Sall. bind na cinq tonnes de ciment. li ma ñaan nag mbooloom képp lu fi nit wax dama lay ñaan nga respecté ko. doomu aadama day fonk kàddoom dañuy wax ni waa Dóor Dóor ni day dund. li mu gor ak gor bu la émergence bi rek mbooloo mi nekk

jël sa engagement na nga xam ne ngay jël ndax la mbooloo nekk tool yi ba mu wax loolu ñeenti na leen

سيد مختار فقد وصلت على أكثر محمد مختار من من دار وصحبه لمن يسلم محمد خلف هذا المدين من الأنبياء والكفرية yéen a ngi lay doog a ñëw ci heure waaye bi ñu ko mësalee yàgg na. mais yàlla dafa dogal lépp loo xam ni app bi jot na ak waxtu wi rek dana am moo tax li fi sëñ Xaadim jógee léegi ren la ci fanweeri at ñu jóge woon vendredi 15 février 1980. ren jii la fanweeri at muy 2021 euh, ñuy ñaan yàlla dolli ko ay leer fa nekk euh, euh, wane na ko waajuram yu baax yi ak maamam yu baax yi yëkkati ko ca maxtaam gën a kawe ren jii nag sëriñ Saliou ci la am yéene yi yéene ci am bàyyi amoon na ko mu seen xarit Maodo pour tabax juróom ren jii la dogal bi dogal jumaa ji nag moom ñu fas yéene mu bokk ci jumaa yi nga xamante ne sii nii jumaa yi dàq ci Sénégal la waaye yi nga xamante ne sii nii ku fi ñëw da xam ne ñii kat sonn nañ ci sonn nañ ci néegu yàlla ndax yàlla moo ñu digal moo wax ci alxuraan yi am na ko waree am yàlla dogal bi nag engagé wu ci ak njaboot bi kenn ku ci ñu ngi si ci transport ñu ngi joxe naa deux millions kii ci presque trente et un loolu day wane pas-pasam ak yéenéem day wane ni moom wootewul rek nekk ca gannaaw dafa woote jiitu ca ñu ñëpp ñu topp ba tax na daal fas yéene nañ daal ni mu ko bëggee mu mel noonu mu bokk ci jumaa yi nga xam daal ko may daal waaw gis ji waaw loolu dafa nekk loo xam ne euh, dañ suñu نولد سنياني نولد سنياني لخ موم لي موي موتاني بون فانيو نيب نيو غير برم كان جيرا لولو داني فاجال سنياني با سن ديغنتي اك موم اك سن دي كول لي سن ديغنتي سن واج تا خامني بو في نيكون ني لا ني دوخال اك موم موتاخ نا كوم نيك في موم سوبول كوم ني في اك جي جام té ñaanal ko yàlla ci bisimilah rahmaani rahim àggale ko alhamdulilah mu ànd ko ak taalibe foofu lañ nekk jumaa ji bu doon jama wala mu doon or wala mu ko doon def xaalis bu ko wootee ñun danañ jaay suñu ah, paquet danañ jaay li ñu am lépp def ko ci biir ndax ndam mu ngi suñu mooy suñu ndam réussir la mooy suñu réussir ba tax na ndam wax dëgg yàlla foofu lañ nekk. waaw ñu gis na tamit liggéey bi ñu ko ab ci biir fukki weer parce que jàpp nañ ne fekk fukki weer yi liggéey bi dina am. waaw jàmm bi yéene na am waaye yàlla mooy dogal. ndax ñun depuis 91 lañ amoon yéene def si biir 91 ak léegi ren la ci fanweeri at ñu bañ a ko teg te 91 lañ amoon yéene la amoon yéene def ko ñu maanaam 91 ak léegi fanweeri at ba ren jii mu koy doog a tàmbali am nañ ci yéene am nañ ci pas-pas am nañ ci engagement am nañ ci volonté ci fukki weer yooyu incha allah rabbi bu àggute li ci des dootu nekkat ñu waaye maanaam bëgg nañ daal fekk 6 mois maximum. gros œuvre bi lépp dana pare incha allah loolu moo suñu yéene bu ko defee nag second œuvre bi ñu mën yaakaar nañ ne daal moom gën jaa bari bari bari bari doucement nag bu soobee yàlla euh, pare incha allah voilà sëñ bi sa kàddu bu rek ñu bëggoon xam ne loolu soññee mbokki taalibe yi nga xam ne feeñee duñ seen ñàkk ci jumaa ji waaw li ñu leen di soññee rek ndax jumaa ji